Thank you. mois cadeau nag dafa ànd ak ñuy rafetal dafa ànd ak ñuy changer décor dafa ànd ak ñuy joxe ay cadeau loolu kenn du leen ko jàngal macha allah TFM moo ci jiitu macha allah dina leen jox ay cadeau dana ànd ak yéen ci quinze jours yoo xam ne. gannaaw bu leen ànd ak wér macha allah. ñu ngeen nuyu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi cliniques yi dispensaires yi ñaanal leen yàlla ndax xam ngeen ne tradition la ci biir émission wareef bàyyi nañu xel ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw jiital nuyoo bi nag ki nga xam ne mooy sunu PCA di ko ñaanal yàlla yàlla dool dolli ko jàmm ak itam tout le personnel ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom te tey ñu nga ca njëggal sunu borom yàlla na njëggal googu yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun nag gis ngeen ko équipe bu Pape Cheikh Diallo saa bu ñu poussé ñun ñooy ñëw man léegi saay damay am feeling ak euh, envie maanaam bokk ca groupe ga ndax nu ma neex ma defee ko waaye déedéet nekkete àdduna dana am fooy toll dafa am lu lay tënk kon boo ko àddunaa ni mel xale yi yal na leen yàlla def mag macha allah Pape Cheikh on te souhaite la bienvenue Ndoye Bane ñu ngi kontaan bu baax a baax décembre mois béni mois cadeau mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628. 04 05 waaye dama am bi may toog fii benn xale boo xam ne daf ma posé benn question nee na ma Eva bu nit takkee takku suuf naka lay def def ak feet yi nga xam ne agsi na doy bànne ma ngir yàlla man ngay may question bi ca kanam tuuti dinañ ci jokkoo ak moom li tax nak décor bi ñu changé ko wax naa leen ko ca njalbeen ñun dañoo nam a gën a jàkkaarloog yéen dañoo nam a gën a saafonte ak yéen ndax xam ngeen ne télé bi fu mu toll fu ne rek seen loxo nga ca seen xele nga ca seen ay ñaan mi ngi ca mois de décembre fin d'année jot na dañu ko doon ñaan yàlla yàlla may na ñu fekkee fekkee na nu am na nañu yàlla may nañu yàlla xañ nañu waaye yëpp dañuy wax rek alhamdulilahi rabil na a ndooy baan bismillah jaajëf Eva ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi seetaan ñëpp di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci mhm. jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr. Mm. di ko ñaanal mu yàgg fi lool ti wér. di ziar waa Pire sañu xóor gi yëpp. Euh, di ca jiital sunu xalif ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé. Mm. ak moom parent ji bi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub. ñu ngi mm-hmm. ziar notable yi ne ci dëkk ba yëpp. Mm-hmm. di comme ni nga ko waxee rek di kontaan lool di ñëw fii ci monument de la renaissance. Mm-hmm. Euh, fas yéene fii ànd ak yéen ñëpp rek ci li nga xam ne jékki-jékki nga ko mi ngi nii monument de la renaissance africaine nouvelle démarche. waaw noonu la ah. waaw waaw xam nga rek gars yi moom dañoo bari ay feem ñoom mm. yaag ñi muy àndal. Ah. moo tax tey jii ñu ñëw toog fii. waaw fas waxtaan ak sénégalais yi waaw di ñaanal sama jour ba Sadio Mané yàlla na ko yàlla may ndam. amiin waaw yàlla na ko yàlla may ndam. Mm. suñu ko ko joxee moo ko moom suñu ko ko moo ko moom. gis ngeen ko mbokku téléspectateurs yi semaine bi passé dañ ci àndoon ak waa Union européenne ñoom ñu fegoo ak ñi nga xam ne ñooy waa ministère de la culture ñu doon wax ne stop aux violences stop aux violences. faites sur les femmes basées sur le genre yooyu yëpp dañ ko doon waxtaanee waaye xam ngeen ne jigéen mooy sookulu àdduna jigéen dañ ko war a sargaal wan war ko protéger war ko wax loo xam ne dana doxal ay mbiram doxal ay mbiram bi ci jëkk dox sax xam ngeen ko mbokk yi mooy kër gi kër gi bu doxul dara du dox rawatina nag léegi ñu ne dafa am lu xew ñu ne lu xew ñu ne nga takk jigéen nëbb ko takk jigéen na bu ko fii lañ koy waxee axankay parce que xam nga waxtaan sax pour que nit ñi déglu la faaw cadre bi nekk ci cadre de vie bi daf ci am solo fi ngeen koy waxtaanee am ci solo boo ma dee seetaan te bëgg waxtaan ak ñun bu subaa mën ngaa ñëw axankay toog ak sa ak sa émission wareef toog ak waa wareef wax sa xalaat dinañ la ko permettre Eva Tra moo leen wax loolu kon demain jigéen bu nuy seetaan te nam ma ñëw wax ak ñun mën ngaa ñëw nag nu yégal la nga toog suñu wet euh, ñu may la occasion nga wax li nga xam ne moo nekk ci yow jëm ci takk takk suuf li ma ci jaaxal kay mbokk yi mooy gisuma kenn kuñ ci takk suuf mu ñeme ñëw toog ci plateau bi man de boobu daf maa jaaxal ndoy baar <laughs> tey ci jukki lañ ne bu subaa ñu dikk ci yëf yi takk suuf yi de ñoo ëpp nit ñoo ëpp fuuf takkee ci kaw mhm. gaa yi bari ngay gis yi ñuy dox di dem mhm. nga yaakaar ni benn jabar lañu yor wala ñaar lañu yor am na mhm. beneen bu làq ca ginnaaw mais ki nga xam ne moom la ñuy nëbb Mm. moom ci boppam moo moo amul maanaa. fi nga ko waxee de nee na fàng fii nii. waaw waaw waaw jigéen dama ne la jigéen ngay xam ne moom la ñuy takk suuf moo amul maanaa. amul classe amul kilifa. yow bu ñu ma takkoon takk suuf man mi toog jàkkaarloo yow aw jigéen nga fekk nga nangu ne nangu ñu takkalu suuf rek amoo classe quoi. parce que daar yow sa yaay bañ koy takk kenn. bëggoon na maa jox Pape Cissé sama sama micro. bëggoon naa ko jox Bouba Ndour. ñi naa ko jox Cissé ñooñu ngay lim nag ñëpp est-ce que sax ñooñu ngay lim est-ce que <laughs> est-ce que bokkuñu takku suuf si parce que <laughs> TFM am na ñoo fay dégg ñoo xam ni ñu ngi ci mbir yu mel noonu mais mm-hmm. sa yaay du jigéen sa yaay bañ koy takk kenn takk ko takku suuf. Mm-hmm. ñu nga judd ñu ngénte la ngénte lu rëy. Mm-hmm. sa baay di kilifa wala ñëpp di kilifa ñëwoon ci ngénte la ñëpp di kilifa. nga màgg yow góor yàpp yàpp la yàpp gu toll ni naan la dama lay takk takk suuf nga accepté ko. très bien ak lu mu mënti lal ak yow loo mënti lal ak leen bëggante bëggante bëggante. Mhm. yow jigéen waroon nangu ñu lay takk di la nëbb. très bien. waaw loolu mooy li nga xam ne dañ leen doon annoncé ne semaine bi incha allah moom la ñu fas yéene waxtaanee gannaaw tey dañu nekk ci teranga teranga Sénégal. teranga Sénégal nag ñëpp xam nañ ko wax naa ko sànq euh, mooy Sénégal boo dikkee dañu lay dalal Sénégal boo dikkee am na solidarité Sénégal boo dikkee am na échange Sénégal boo dikkee bu la dara dalee bu la neexee danga dul sax àggagum cib si doo dem ci ñoom ndax ñun entre ñun rek macha allah ku ci nekk am na looy apporteel sa moroom moo tax euh, bu ñu waxee ne bu ñu nekkee à l'extérieur am yenn problème yi dégg naa mag ñi ñuy wax ne dafay baax ngeen dugaat avion ñëw ci dëkk bi ñu euh, euh, dalal leen tatagal leen wax leen solaat leen ngeen dellu parce que ressource wu def ci am solo Ndoye Bane nee nañu Sénégal am na social living. waaw Sénégal am na social am na ay nit yu baax yu ne ci dëkk bi. Mhm. ñoo xam ni dañuy def teraanga rek te yàlla tax. Mhm. te bëgguñu kenn ku ko wax. Mhm. waaw mais nag soo gisee souvent ñu koy wax. Mm-hmm. dañuy bëgg ñi nga xam ne duñ def lu baax. mën a roy ci ñoom am na ñoo xam bëgg nañoo def lu baax mais xamuñu nuñ koy defee wala gisuñu kuñ ko defal. wala gisuñu bunt parce que dañoo ubbikiwul mais tey ji soo dee seetaan yi di déglu rajo yi di xool internet bi. Mm-hmm. soo bëggee lu def lu baax di ko def. soo bëggee def lu baax sa dëkkandoo rek. sa kër gi nga dëkk. Mm-hmm. soo xoolee ci ci kër yi nga taxalool. am na ca ñoo xam ne sunu añee duñu reer. suñu réeree duñu ndékki mhm. seen loxo jotul seen ginnaaw ani bijou si su fekkee yàlla dala dala jox teraanga mhm. dafa la cay jox pour nga jàppale doomu aadama mhm. teraangaa ngi fi dëgg mais problème bi mooy bëggante gi moom moo des ci réew mi c'est bëggante bi nga nekk am sa dëkkandoo nga bëgg ko mu bëgg la ngay moytu tooñ sa dëkkandoo moom yow itam mu koy moytu pour am jàmm loolu mooy problème bi mais am na ay kilifa yu ne ci réew mi ñu bare baree bari mën naa la ci limon lu baree baree bari ñoo xam ne tey jii ci def teraanga leen dëkk ci dimbali ay doomu jàmbur leen dëkk te bëgguñu kenn ku ko ŋaan man mhm. xam naa ci ñu baree bari mhm. ca dëkk ba ma dëkk xam naa ko fa mhm. ci dëkk bii di ndakaaru xam naa ko fi ci ay sénégalais yu nekk bitim réew tamit xam naa leen très te fi mi nii nit ki nag loo def ci ay doomu jàmbur yàlla fay ko ci say doom te bala ngaa xam ni ba xam say waajur daan nañ def teraanga wala daawuñu def teraanga nga tukki gisoo ndey gisoo baay. Mm-hmm. nga xam ne fii yàlla rek fi sa sës. ak say waajur. Mm-hmm. foofu ngay xam ndax say waajur liggéeyal nañ la wala liggéeyul la mm-hmm. waaw. bu ñu dee waxtaanee teraanga tey itam dinañ ci boole ñi nga xam ne ñooy sénégalais de l'extérieur yi massa leen coono ndax da ngeen di yónnee dépense te du ngeen ca lekk dangeen di fay courant te taalu leen ko dangeen di fay ndox te jëfandikoo leen ko wax dëgg yàlla yàlla na yàlla defal leen jàmm su nu dee wax itam solidarité ba tey sunu xel dina dem ci sunu ay consoeurs sunu ay confrères ku ci mel ni moom Mindoy Bane toog fii te piir mu fay dox ay jéego yu am solo ku ci mel ni soxna Mami Diop ne moom itam gis ngeen ko chaque année ma nga ca camp pénal di góorgóorlu ak détenu yooyu nga xam ne ay jigéen lañu te ndogalu sunu borom yóbbu leen foofu sunu waxee ba tey waxi teraanga ak solidarité sunu xel dina dem ci bijou si yaayu Adja mi nga xam ne moom itam à sa manière dina dem euh, seeti ñi nga xam ne ñoo nekk ci pouponnière yi mu ànd ci moom itam ak euh, ay xaritam. yooyu yëpp day am euh, solo ñu koy def wax dëgg yàlla ñu daal di leen wax ne mën ngeen euh, mën ngeen a woote ci vingt 628. vingt vingt deux deux 22 22 628 04 cinq ngir indi seen ay seede du ñàkk tey ci journée bi gis ngeen koo xam ne dafa leen charmer ci jikkoom ju baax parce que dañu toll ci jamono boo xam ne mbokk yi faw li nga xam ne dafa baax ñu kaa waxtaanee di ko jottalante ndax am ñeneen ñoo xam ne dañ ci jël exemple nit a ngi réer dafa amul ku wax ak moom bu amoon ku wax ak moom amaan na dana teel a dellu si nit a ñuy seetaan. waroon fi jóge dem doxi loo xam ne lu safaanu la ma nga naan déedéet waruma defee noonu naa soppi doxalin soppi doxalin weesagul mbokk mi ki nga xam ne itam yàlla daf ko dénk dénk ko lool bu gestoo à gauche yàlla may na ko à à droite yàlla may na ko kooku itam wax dëgg yàlla nu ñu koy waxee rek jamais tard pour bien faire kon boog euh, wax dëgg yàlla lu waay mën na ko def parce que moi la boo xam ne dañ ci nekk am na ñoo xam ne dañu nekk dans le besoin maa ngi gis bu ma Mamadou Ndiaye jege woon dana ma ko woon doy baan xaw ma ban dëkk la ñu ngi jël ay vest ay parka ay kile def ko ci garab yi pour ñi nga xam ne ay SDF su nu ñëwee rek ñu jël ko sol dem seen yoon parce que ñoom ay ay sans domicile fixe lañu na ngay fanaan ci mbedd mi ñooñu tam ci seen manière ñu ngey may nit yi lu ñu sol ñii ñu joxe ay couette parce que am na ñu ko soxla gardien yi ngay gis ci mbedd mi ndoy baan bu seddaay bi jotee dañuy am ay jafe-jafe du ñu am fu ñu tëdd parfois parce que chaise lañ lay tegal donte gardien warul nelaw mais war nga am au moins loo couvrir sa bopp wala loo xam ne dana dana baaxal sa sa sa toogaay. Euh, wolof Njaay dañuy <clears throat> ndox du jéggi pax. Mhm. fii nii gaa ay nit a ngi fi di def lu baax. Mhm. mais tey jii mënoo yor chauffeur. waaw ba tey. yor gardien. Mhm. yor jànq bu nekk sa biir kër ga. dégg naa dëgg de. ñii nga leen fay cinquante mille ñii trente mille. cay ndooy baan. gardien ba ca buntu kër ga. waaw da ngay añ say da ngay rey sam xar di ko noos ca buntu kër ca biir sa biir kër gardien ba du ca ñam. dégguma la de. waaw da ngay gis kilifa goo xam ne mi ngi may seetaan la ma yor yàlla du jeex. Mhm. janq ba ca biir kër ga. lam koy fay. Mhm. munu ci sax fay am néeg. <laughs> gardien ba ca buntu kër ga lam koy fay munu ci fay sax am néeg. Mhm. te ñu ne yow ab milliardaire nga wala millionnaire nga. te gardien bi di toog di dégg ngay maye ay millions yu bare bari grand théâtre dëgg la gardien bi di toog di gis ngay may ay millions yu bare bari ab sëriñ. dëgg la te gardien bi sa biir kër. Mhm. sa chauffeur bi nga xam ne moo lay indi ba moo la yóbbu ba nga mayee million yooyu. pour mu am salaire cent mille francs ci yow. Euh, problème la te moo ne sa bakkan gannaaw yàlla mi ngi ci loxoom. Ah, c'est ça moom ma ngay dawal ma ngay xalaat dépense waaw léegi loolu loolu ndimbal la wala ngistal dafa am ñoo xam ne ngistal la ñuy def. gis leen ma voyé moi loolu lañ bëgg. Mhm. mais tey jii li naan mbay ci say wom suy dimbali. Mhm. da ngay tàmbale ci say mbok tàmbale ci sa yaay tàmbale ci sa papa tàmbale ci say frère tàmbale ci sa soxna tàmbale ci say doom. tàmbali sa dëkkandoo sa dëkkandoo bi lii la gën a jege mooy ñii ci biir kër gi sa jànq ba ca kër ga gardien bi sa chauffeur d'abord ñooñu waruñoo mu dara ba soo ànd ak ñoom di yóbbu feneen teranga ñu ne ah teranga gi kat fii la ko njëkke fii la ko njëkke yaa ngi may fàttali doguma la am na sunu benn kilifa bu mag boo xam ne bu fi nekkoon daana wax mu ne bu demee ca dëkk euh, bu ñu ko dalalee li muy njëkk def mooy nanu dalal chauffeur bi ndax chauffeur bi moo yor sécurité ba ba nuy àgg foofu. nan ko dalal jox ko fu mu ne waaw utal leen ko ah yow xam nga. mais utal leen ko c'est vrai. <laughs> c'est vrai dafa am euh, action bu ma doon wax bërki dem ci rajo bi ci affaire teranga ak dimbalante. Mhm. Sénégal laay gis petit ndoo yor camion jënd camion buy jar trois cent millions. waaw dem port yàpp ci valeur ay millions lu mat cent millions wala cinq cent millions yàpp ko ci camion bi. waaw. camion bi départ war a wuti Mali. waa chauffeur bi koy dawal amul salaire cinquante mille. chauffeur baa ngi dawal oto trois cent millions. Mm. yàpp marchandise su cinq cent millions. Mm. war koo dawale Dakar ba ba ba Mali. Mm-hmm. chauffeur boobu noonu noonu amul salaire cinquante mille. te itam ne woo dawal na nangam naa ko yokk danga naan na yem ci salaire. loolu soo muusee yow soo muusee di nga ni man mii defu may fi nit kii li muy ay milliards la yore. Mm-hmm. di ko dawal moom. mais su ma muusee dinaa ko fay loo xam ne su tëddee dina nelaw sama marchandise beeg sama oto bi dina ko toppatoo. léegi nag chauffeur boobu noonu nga xam ne moo yab millions yi bari yooyu te yor sa cinquante mille lu ko neex lay def ci tali bi fu ko neex lay jaarale sa marchandise. su ko neexee root ci ci jaay naam kenn sant ko ko. mais ñàkk pexe moo tax mu jël salaire boobu mais yow mi nga xam ne yaa ko teg loolu tegoo ko fen mm-hmm. c'est que fii ay defkati lu baax ngi fi teraanga ngi mais àq gi dafa bari. Ah. nit ñi de voilà taxawal foofu waaw àq gi da maanaam nit da da nga koy liggéeyal yaa ngi koy fay weer wu naam mais xam nga ni kii amel nga ko àq xam ngeen nga ni lii nga koy lii mu lay liggéeyal li nga koy fay jaru ko su doon yow doo ko nangu ak lu dëkk bi tar tar tar amoo droit tey jii ñu ne ab milliardaire nga wala millionnaire nga yaa ngi def lu baax fu ne fu ne ñëpp di ko wax sa chauffeur su nelawee du doy sa chauffeur na koy génne location sa chauffeur këram suñ añee duñ reer lu tax. famille danaay dégg ne asaka asaka bu njëkk sax mën nga koo jox ña lay liggéeyal damay dégg loolu yi. joxuñu kenn ña koy liggéeyal su yoo gisee marché yi di tàkk yu bari di tàkk ci dëkk bi. cay ndooy lu ko waral ma waxati boobu. lu ko waral. Mm-hmm. ñi ñi ñi seen bagage yi tàkk c'est pas ay ndooy baan yoo xam ne ay weccet la yor de. Mm-hmm. ay milliardaire la ñuy doon ay millionnaire la ñuy doon mais li ñuy yor maanaam ña leen di liggéeyal lekkuñu ci. Mm-hmm. seen jabar yi lekkuñu ci. mbay ci say woom fii ngay gis wax naa la ko ba tey fii ngay gis kilifa gu yor këruk cent million jël fauteuil ya def ca salon ba rek la la nekk ci salle ba ëpp na 6 million di dawal ay rans yu doy waar di sol ay gestionnaires yu doy waar soo gisee jabaram yërëm ko ci wareef te soo génnee su génnee ci tele bi ah. nit ñi ñi naan ku mën teraanga la ku mën a def lu baax def lu baax da koy jëkke ci sa jabar say doom sa njaboot waaw mais xanaa xamoon ni ñoom Petit Ndoye mi ngay teral cinq cent mille ah. Petit Ndoye a jabaram la ciy jëndali or de yow mi nekk milliardaire te sa jabar takkul or Petit Ndoye mi ngay may deux cent mille ah, ah mais c'est vrai ah. donc teraanga soo koy def da nga mm. koy njëkkee ci sa bopp teraanga googu nga wax dina am koo xam ne dinañ ko nuyu bu baax a baax mooy ajaratu juma jaxate ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah xam ngeen ne mbok yi mën ngeen a wootee 88 628 22 22 laaj leen ma lan ngeen di am sax nag bu weesoo waxu décor da ngeen di am mbubb mu riche boo xam ne euh, wax dëgg yàlla bu ñu dee wax euh, njëgam bu riche daal laa mën a wax macha allah boo xam ne ajaajuma ànd ak waa Chalimar ñoo leen ko may. loolu defe naa ne dana neex jonga ba mu mel ni Ndeye Amy Guèye moom jamono jii ñu waxtaanee. ma nga nekk ca jandeer xam nga ni kii di romb ko mën teranga la kii nii. kanci kanci naka caméra bi non non man xanoo xàmmewu ma ko teelu ma koo <laughs> très bien ñu ngi nuyu bu baax a baax Kumba Gueye di nuyu Kumba Mbeng di ànd ak Mami Ñang ñoom ñett ñëpp laaj ma. doxinam baax na de ñoo bokk benn kilifa euh, yaa ngi may dégg bu baax. nu muy daagoo baax na daal waaw wax nga dëgg dama ni muy daagoo teranga la. waaw waaw ni muy daagoo wax dëgg mooy dafa am daago te xam nga ah. di la di la tëj biir parce que yi nga ndam ma yëpp maa ngi la koy tere non non c'est waroon na jël tekku caméra bi mbaadu mbaadu xeetu soxna yi rafet ci la non non laa la xam nag am na ah. jabar yoo xam ne su la ko yàlla mayee yàlla dalaa teral dalaa teral oho mi yaa nduur jëlal boobu waaw am na jabar yoo xam ne nag su la ko yàlla mayee yàlla dalay mbugal te xamoo ko <laughs> aywa astafurlah am na jabar am na jabar yoo xam soo ko amee yàlla dalaa nar a mbugal ci sa dund waa xeet bi xeetu jabar bi naka la xeetu jabar waaw parce que ci teraanga la ñuy wax voilà jabar yoo xam ne dañoo dañoo mën a tontu benn duñu toog mënuñoo toog ñaar salté nañu ñett salté surtout jigéen gu salté ah waaw waaw nañ la waaw salté mm-hmm. jigéen day mën teraanga mm-hmm. sa yaay ñëw mu topp toog jigéen soo ko takkee teraanga gi ci ëpp mooy na la gën ko gën yow ni nga bëggee say mbokk moom na la gën a bëgg say mbokk. Mm. ci kaw nag ci kaw ngay def loo mën. xam nga tey jii waxoon naa fi jigéen dafa war a neex ñëpp toj. ñun doy baan fu mu jëmee neex gi. Mm-hmm. <laughs> ma ne jigéen daa war a neexi ree wala mm. wayu bee di ree woowu waaw moom kay li nga fi bëgg lijjanti dafa bare maa la ci bàyyiwu neex ay ree waaw neex ceeb mm. neex cuuraay dëgg neex parfum neex ay wax d'accord na jigéen gu ko gu ko am rek am nga teraanga waaye tamit yow la ñu may loolu waaye tamit yàlla di la la may jëkkër jëkkër joo xam ne dala leen yow yàlla dalaa nar a mbugal ci àdduna ay xeetu góor yi mel ni Babacar ak ñoom ñoom tanoor ñee mm. ñooñu soo leen amee mhm. yàlla dalaa nara a ci àdduna mhm. ay góor yu metti yoo xam ne mhm. surtout fiir góor su fiiree am nga problème fiir waaw bu fiiree waaw góor su la su fiiree fiir dafa am ay fiir yoo xam ne ak ndof la ay fiir yu ëpp ci ñàkk teraanga la su la yàlla mayee góor gu salte am nga problème góor goo xam ne su sedd bii nii du sangu nga tàngal ndox du sangu waa am na góor ñoo xam suñu leen tàngalee ndox duñu sangu ñoom sangu ci boppam mooy seen problème te xam nga tey jigéen ñi dañoo mën ay lal ay darab yu weex yooyu noonu teg seen affaire yu weex nga ñëw salte xasaw dox ci gudroon gudroon Ndakaaru ba xëy ñëw tëdd taqal dara ba yooyu darab sax dafa war a taq mais tey jii su sañoon day góor gu set gu siluisee sol yu set mooy tëdd ci dara bu weex boobu waaye su la sa jabar nee dama sangu ji nga bañ mu tàngalal la ndox nga bañ mu indi njàppe nga bañ yow daal da ngay xëppoo rek génn dem sa yoon am na ñoo xam ne salte ci boppam dafa bokk ci seen affaire léegi su la yàlla mayee jëkkër ju mel noonu am nga problème xam nga su la yàlla mayee jëkkër ju mën a dox yoo xam ne xaaraankat la maanaam am na jëkkër xaaraankat dafa am. Mm. tey jii ma ñëw rek am naa jabar di fa joxe dépense su añ jotee dama war a dem añi waaye ma añi sama kër copain yee ma gën a am añ sama kër jabar. bokkul ci teraanga jigéen ñi loolu neexu leen. xam nga. mais su la yàlla mayee nag góor gu tàlli xam nga woyu nay bi mi ngi toj dëkk bi xam naa dinañ ci ñëw. <laughs> góor gu tàlli man de mayagoo ma ci nay waaw. waaw góor gu tàlli si nga góor soo mm. bëggee soo bëggee am xaalis yow soo bëggee loo yóotu jot ko da ngay tàlli ci sa soxna dangay ngay tàlli ci say doom tàlli ci sa yaay. góor ñi gu tàlli ci sa jabar doo ko réccu. Mm-hmm. te na ko gaa yi essayé. dëgg waaw su fekkee tey la la war ci sa jabar yaa ngi koy def la la war ci say doom yaa ngi koy def la la war ci sa yaay yaa ngi koy def ak say waajur doo wuti dara te amoo ko mais su fekkee lu la sa yaayoo laaj nga ne ko awuma lu la sa jabar laaj ngeen ko awuma lu la sa doom laaj ngeen ko awuma foo damit doo am dara léegi saa yi nga nekk samba allah nag génn ca mbedd may maye waaw dangay ngay maye waroon jox joxoo leen oh, c'est ça des fois nga gis nit ku toog ta am na ku doon battre bi xaalis fële ca Grand Théâtre jabaram yaayam wooma ni ma kii waaw ni ma kii di battre nii ci télé bi di ko battre diw mu mun ma sama doom la maa ko su jur maa ngi nii sama buntu néeg bi amul sama néeg amul bunt dañ ciy wiir benn genre zinc lañ ciy wéer teg ci xeer ba asamaan set yooyu ngay wax à la woon de. waaw ba jamono léegi nii léegi nag waa ji doon tuxu si ci benn quartier doon tuxu ci quartier ba ma dëkk la ñëwoon doon fa tuxu si. Mm-hmm. di wàcc ay baga bi ma nettalee lii ci télé bi 11 jours ma ni muy wàcc ay bagaasam gis ma may gaare mu laaj gardien bi Euh, Ndoye Bane mii fii la dëkk ñu ko fii la dëkk waa ji tuxuwaat mujjul dëkk foofu. dëkkut ak yow. waaw man ko man sama yoon nekkul ci yow ah, mais damal nga tere ji saa am na ko nekk ci ligne bi. très bien. allo allo allo. allo salaamaaleykum. allo waaw so maaleykum salaam soxna si na nga def. ñu ngi sant yàlla di kontaan ci seen woote. alhamdulilah kii de Abdou Diaw lañ koy wax chauffeur. ah Diaw ñu ngi lay nuyu. dommage Abdou Diaw. Euh, Abdou Diaw <laughs> échappé nañu du ñàkk moom sax ci li nga doon wax doon na ci bëgg a indi itam xalaatam. gis nga àdduna bi lu nit bari le bari le hmm. loo fi mënti am fii nga koy bàyyi. dëgg la dañ fexe ba teraanga gu la yàlla jox. Hmm. bis boo faatoo tëdd say mbokk gërëm la. Hmm. sa ndey ak sa baay gërëm la. say soxna gërëm la say doom gërëm la. que yow alal ji la yàlla jox doon nga leen ci teral. sa waa dëkk gërëm la sa waay réew jërëm la. kenn du ko lekk dañ koy jariñoo dëgg kenn du ko lekk dañ koy jariñoo sama xarit ba nee na woon soo amee sab xarit boo xam ne yàlla da ko may wërsëg te yàlla mayu la wërsëg mm-hmm. muy sa xarit ngeen di ànd defulu la dara na ko batte foo dem yàqal deram mm-hmm. <laughs> dégg nga li euh, maa la maa la dégg piir ñu ngeen nuyu wax dëgg yàlla soxna Ayta Ndiaye moom itam ma nga ba ma ba Thiès du ñu seetaan kontaan loolu ci émission bi ñuy nuyu itam dama koy wax saa su ne te duma ci taay tàyyi mooy yaayu daara yi. ak ces femmes là yi nga xam ne bu ñu dee def dañuy def rek euh, nekk dans l'ombre dox nànk def teraanga ñu ngi ci daara yi ñu ngi ci jumaa yi ñu ngi ci euh, mhm. jàkka yi ñu ngi mhm. ci bërëb yi nga xam ne ay nit dañ fay nekk ba nga xam ne bu màggal amee gàmmu am mhm. dañuy def teraanga yi bëri xër ba dee yóbbu di ko joxe ndooy baan waaw dëgg la mais euh, loolu bari na am na nit ñu bari ñoo xam ne su nekkee ci dañuy góorgóorlu ca dëkk ba. Mm. mais man li may ñaan rek waa dëkk ba nañuy doon ñu ñu reconnaissant. dëgg la waa dëkk dëkk boo bënti dem ci àdduna bi rek ña baax ca dëkk ba waa dëkk ba xam nañ na ya ña yàlla may teraanga te amuñu njariñ maanaam imam xam na kuy jullee ca jàkkaam voilà mm-hmm, mm-hmm. tey jii Eva Tra su fekkee euh, fee nga dëkk nu de quartier ba nga dëkk waa mu fa wala Petit Ndoye ma nga dëkk Ngaay wala ma nga dëkk Kaffrine mm-hmm. su fa amee njariñ waa dëkk ba xam nañ su fa amul njariñ waa dëkk ba am nañ xam nañ ni ñuy jéem a jàppale jàppale nit ñi nga xam ni ñi ngi ca dëkk ba am njariñ dëgg parce que am na ñeneen ñu ñu ëppale pëtindoo yi te nekk ca dëkk dëkk ba te amul ñu benn njariñ dëkk ba mhm. donc nañ ciy jéem a lu baax a baax ab dëkk soo ci nekkee mhm. lama may yuusu waxoon rek ni ma mhm. am réew soo ci nekkee da ngay fexee bokk ca way wa très bien ci lu baax am réew soo fa bokkee da ngay fexee bokk ca way wa dafay di di di jël sa yu baax di di di leen jox. di toppatoo daara yi di toppatoo ñëpp ñi nga xam ne war nga leen toppatoo waaw alors Ndoye Bane man petit Ndoye nee naa Eva Tra ku ko da ngeen ma teg nii mais bëggoon na ma lool euh, xool chambre à coucher bi ñaata la ñaata battant la sax. ba mi nga ci 6. bi nag ba jekkoon na ci Mimi Traoré. alors gis ngeen ko gis ngeen euh, lal bi vraiment euh, tetu lal bi sax dañ ko habillé en daim. mooy kii mooy meuble yu bees yi nga xool euh, wax dëgg yàlla li nga xam ne mooy coiffeuse bi euh, ñu def ci euh, décor bu rafet macha allah gazinière gis naa ko fii gis naa fi table à manger bu ànd aussi ak ay chaise am et man design bi moom a neex rawatina nag salon bi nga xam ne dañu fi dañu fi toog xam nga boo amee comme que ñoom naa dafay jaadu nga am ay salon ay salon ay salon macha allah naa moom bii baax na ci moom <laughs> naa moom mu def ko ci séjour bi rek boo dugg see rek waaw. naa xanaa xamul ni gàmm gi sàmm ne la. a ah, xan kay ah xan kay daf yooyu yëpp ci teraanga la. loolu lépp ci ak émission bi la bokk. Euh, euh, man man bu exemple la. attends eh, attends man gis naa gis naa frigo bi réfrigérateur mi ngi na le aussi. waa très joli bu oh, subaa nag est-ce que xam nga bii bu ci nekk danaa dem tijj ko xool la ca biir xam nga loolu waaw waaw lii kenn du ma fi teg rek man wareef damay bëgg parfois eh, su jaadoo sax ñu yóbbu ko fële ca rue 15 fa ma juddoo teg ko ca taliba gis nga yii nii baax kontaan naa tey ci seen production waaw <laughs> ñoom ñoom mi yaa ah, ah. lii moom dafa baax gis nga nit nit daa la belle voiture qui la baax bas waa petit lii nag mooy moi cadeau <laughs> oto bii dama ci gis sama bopp mi yaa xanaa suba di ngeen ma bàyyi ma taal ko sax xaw a di dikkaat amul ko nekk ci ligne bi mais dama xëy rek moom ko allo salaamaaleykum. dañuy dañuy woote pour am ci ah voilà. waaw dañuy woote pour am kon affaire dañ koy 628 22 22 628 04 05 yéen a ngi ci teranga Sénégal bu nu waxee teranga Sénégal xam ngeen mooy baax baaxu Sénégal ñun nag danoo dem ba dans le monde entier foo mën ci dem boo waxee Sénégal ñu ne la pays de la teranga. kon ñi ñi njëkk terangal mooy sunu ay téléspectateur ndax ñun ak yéen yéen ak ñun c'est une famille ñu ngi ñaan yàlla ànd bi yàgg pour que ngeen am lii nag yomb na da ngeen di wootee ci émission yi ngeen di gis da ngeen wootee yeewu leen woote wareef topp programme mu télé bi ci euh, mois de décembre bi jëm janvier sax du ñu yem rek ci décembre dañ ciy dugg ak yéen ba janvier di ngeen mën a gañee oto bu rafet bële su ma noppee xanaa dañ ma ci bàyyi rek ma dem ci tour yow indi ko dama gént am oto bu bees dafa mel ni bii lay doon. allo ah allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Sukuta Eva. naam. waaw maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax di la ziar. di moom moom tamit. waaw dama bëggoon participer ci émission Teranga Sénégal bi rek. dëgg la ñu ngi lay déglu. waaw di wax ni Teranga ñun dañuy liggéey ci kër la ñuy ci kër laay liggéeyee. dëgg la dëgg la. allo. allo ñu ngi lay déglu. waaw day gis salaire bi ñu lay fay. dëgg la. la dara dara dara. dëgg la di la daggal ay loo xamante ay ndékki ay lu loo xamante ni yow boo toogoon si kër sax doo ko lekk. dëgg la te ñoom it duñ lekk loolu ñu lay jox. Mm-hmm. ñu romb la bàyyi la ak seen matériel kër gi ñu mu toll lépp. Mm-hmm. bàyyi yenn saa ñu lay jéem a teg ay biir di teg ay xaalis ci côté yeeg. Mm-hmm. lu nekk da koy dund ci kër yoo xamante ni sénégalais nga comme ñoom. ñuy xëy di dem di la bàyyi ci kër gi tout le temps. saa ñu lay jéem a teg ci sa mbokku sénégalais xam nga loolu ñaaw na taay ba. Mhm, mhm. man ni jàng naa ba am sama diplôme mais déposé naa aw ma mais ci kër laa mujj liggéey aw ma complexe boobu. Euh, fi ngay xam naa ni toog moom allo. ma ni fi ngay liggéey sore na ñaata weer nga fa def. waa am naa fa léegi bientôt trois ans. bientôt trois ans. waa. te nga ni am nga sa diplôme. waaw jàng naa dama def bac aw ma bac ma def formation deux xam nga mooy demewul noonu ma daal di kii. Hmm. def ak BTS rek at mi daal di kii ma ne woon damay liggéey pour di fayal sama bopp cours du mais salaire bi mun a demee noonu boo ci dindee say jaabante yi sew sewaa nag say besoin yenn yi. Hmm. du la mën a yeggali. loolu dëgg loolu taxoon ma tegoon jàng bi noonu de côté du dëgg la. mais liggéeyu ci kër yi daal parfois taay va. Mhm. na waar de wax leen ci bu baax a baax baax a baax. très bien très bien. Euh, boo ñu mënee bàyyil sa numéro ci euh, Mia su ko defee ak euh, après ñu jokkoo ak yow gën a waxtaan incha allah très bien am na benn appel boo xam ne dama koy def sañ naa ko def ak aisance sax xam nga xale yi dañuy am ndoybaan Euh, nuñ koy waxatee euh, ci école yi ñu ne diw may nañ ko boursu nangam dafa war a dem jàngi fayal nañ ko université bi yaa ngi reete pareeguma mais est-ce que xam ngeen ne ces jeune filles là même pour ñu am 200000 francs doy baan yu ñuy demee inscrire duñ ko am université bii ku bëgg a def teranga na nga fa dem parce que parfois dafa am xale yoo xam ne lu ñuy inscrire dugg université yàlla xam na ne amuñu ko ndoy baan yàlla xam na ko effectivement ku dem gaare nank taxaw xool kaawu étudiante yi am na ñoo xam ne amuñu lu nu inscrire àggali waaw c'est que euh, euh, loolu waaw c'est un cas doy baax cas bu garaaw la mais loolu am na ay mairie yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo parce que defe naa mairie bi moo leen di octroyer. kii bi moo leen di jox bourse bi. mais bu passé loolu. waaw boo demee ca université privée bi. waaw da nga war a inscrire. ñu ne eh. la war nga joxe ma juumul. dana tolloog ñeent fukki junni. mais tenez-vous bien. Uh-huh. xale yi même pour ñu accéder encore foofu. ci loolu ñeent fukki junni jafe na leen. yàlla xam na ko et ça fait mal. jur nga gis ko. xam naa ci buntu rajo buntu télé bi. xam naa ko bu baax. Euh, soo demee ñun suñu dëkk bee amoon nañ fa kaay yooyu bari na fa trop trop. yoo xale yu lay wax bul ma jox xaalis. waaw demal sax ci bërëb ba nga fayal ma. effectivement mais day xaw a metti. par exemple soo demee école bu mel ne ISEC fii nii. Hmm. monsieur Diop ñu koy salut de passage. ñu ngi koy nuyu bu baax franchement. moom mbaa jëlul ñëpp ka social. kooku kooku man xam naa ni. <laughs> Diop papi Adiba waaw monsieur Diop bu ISEC. ak euh, madame Diop man xam naa ni seen njàngale ma dañ cey perte. c'est la vérité nanu ko wax nag man man waaw dañuy perte parce que man yooyu bëri nañu man li ma ca xam kaa yi ñëw ci rajo beeg télé bi yëpp ah. falaa leen yóbbu mu jël leen gratuitement ah dañu koy wax parce que dañu ko dund de moo tax ñu wax ko yàlla yàlla man damay gis ay kaa man dama ko damay am kersa woo ko dëgg la pour wax ko ko parce que kaa bu ñëw da koy jël ça fait plus de cinq ans kaa yi ñëw tey ci ku ne ci ku ne moom privé la def nañu waxante dëgg day fay mais mënul su ñëwee du ko rejeté kii papaam baykat la mbay mi la yaakaar mënul yëkkati deux cent et quelques trois cent mille wala jël benn un million di ko def ci benn kii wala su dee jigéen la da koy wut may jëkkër mu dem yoonam su dee góor la mu dóor ko ci tool yi ñu bari ñi ngi dem tool am bag kese donc nañ jéem a xool nu ñuy wàññee njàng mi jéem a jàppale xale yi ci ci mbir moomu mhm. ñu ci interpellé état bi bu baax a baax ak ñi nga xam ñu ñooy privé yi mhm. ñuy wàññi li nga xam ne moom mooy di man li ma mën a fay ah. am na ñoo xam ne mënuñu ko fay di keneen fay mun keneen koo xam ne mun xale yi dañuy jàng ba am bag dëgg la jot dëkk ba lañu ñu mën a des di taxawaaru dinañu wax ak tam wax itam ak nga xam ne yàlla daf ko nattoo këram ay élèves rek la fa dalal mhm. di ci def te yàlla tax ñii ña nga dëkk jóge dëkk nàngam ñii jóge dëkk sàngam hmm. ñëw dal ca këram mu yor leen te yàlla rek a tax yow mi nga xam ne itam daf la yor ngal la boo demee ba màgg bul ne nii la ma defoon xeelu woon na ma nàngam mais xamal ne mi ngi woon ci jafe-jafe te nangu na laa ubbil ay portam pour nga toog euh, ak yan condition yàlla rek ka xam loolu nag loolu nag loolu nag ci ñun waa kaw gi la gën a grave tey jii <laughs> soo nekkee dëkk ba ñëw ndakaaru yàlla wërsëgal la nga am fi kër waaw kër ga yaatu nga jël say doomu bàjjen wala say doomu frère wala say say cousin wala say jarbaat indi leen ci biir kër gi waaw sunu amul xel lool lool dinañ la jaxase ak sa soxna dëgg la jaxase la ak waa dëkk ba mm-hmm. parce que mën nañ fee ñëw safaanu mën na am na ci ñoo xam tamit mën na ñëw ñëw doon ay nit yu normal ñëw jàppale li ci kër gi mhm. jàng ci kër gi ba ba ba réussir ci mhm. am na ci ñoo xam suñ ñëwee nag dañuy ñëw ruubee kër gi mhm. loo leen wax ñu woo waa dëkk wax ko ko woo seen yaay wax la ko ah diw de jabar ji daa siis wala diw de damaa ñëw kër ga këram mu may làqatoog mu ma mu ne munum faa nekk kër nañ xam ne dëkk bi ci boppam moo moo xat te dëkkandoo ci boppam moo met dëkk moo met kii nag nee na Eva c'est dommage parce que message am bi amul suite j'aurais bien aimé mu am suite wax dëgg yàlla Eva condition yu métti la ñu nekk su ngeen mënee sponsoriser ay élève pour ñu jënd ay serviettes hygiéniques ndax dinañu rater quatre jours par mois oh. Mhm. ndeysaan. waaw mhm. ah, mais loolu voilà ñi ay xale lañu yoo xam ne dañuy rater quatre jours par mois ay fillettes moo tax àdduna. bul toog sa aisance ba ne ñëpp dañ caa war a ne déedéet yàllaay séddale te lu ko neex mu def ko. léeg-léeg da nga gis koo xam ne buy xëyi maanaam buy dem jàngi école yàlla xam na ne ndékkiwul yaayam daf koy fekk ca école ba jox ko ndékki axankay ah, nekkoon nañ fi ay xale de fàtte xaju fi ndoy baan bisimilah. jaajëf kon daal li ñuy mën a wax daal mooy ñi am doole nañ dimbal néew di doole yi te sàmbala alaari bàyyi li ñu nekkee te jël li ñuy war a def ñu koy def ci seen njaboot yi xam nañ ni su fekkee sa bàyyi amul. amul su sa yaay amul amul mën nañ ko comprendre mhm. mais xale yi tamit dañuy góorgóorlu di yem ci seen ci seen ñax ko papa mhm. su sa baay amul nga xam ne sa papa amul mhm. su sa yaay amul nga xam ne sa sa yaay amul mais bul dem naan damay defee damay dem wutali wuti tous les moyens sont bons pour que ma mën a teral sama yaay teraanga teraanga day sell teraanga day day day day day day lew teraanga day lew jël loo xam soo koy jox sa papa sa yaay ñu koy lekk soo tëddee doo nelaw. Mhm. wala jaay sa yàpp yaram naan damay ta teraanga teral sama yaay ak teral sama santu la loolu du tera loolu du teraanga. dëgg la def lu la neex ni damay teral sama sama yaay ci biir màkka. Mm. fekk yow. ba sa yaay demee màkk ba nga tëdd ci guddi googu ba nga tëddee nelawoo lu tax ndax la nga amee biir màkk ba lewul. tooñ nga sa yaay tooñ nga sa yaay. bàyyi nañuy bàyyi di yenu ay responsabilités yoo xam ne kenn yenu leen ko. Mhm. xale yi ñoom laay wax. àdduna yàlla moo bindee noonu. dafay bind ñii am ñii ñàkk ñëpp voilà ñii mun ñëpp mun ñoo am mhm. ñëpp mun ñoo munu munoo ñoo ñàkk mhm. nañ ne ku nekk góor góoru ci yoon wa nga ne te bàyyi li ci des ci loxoy sunu borom très bien am saxul ñàkk saxul déedéet ku fii daal mi lay ñaax nit ñi mooy képp koo xam ne mhm. yaa ngi dund na la yàlla xiir ci def lu baax très bien yàlla xiir la ci am lu baax nga fexe amal njariñ société bi amal njariñ société bi mooy nga tàmbalee ko ci sa biir kër mm. amal njariñ sa waa kër d'abord mm-hmm. soo amulul sa njariñ sa waa kër ba di amal njariñ mbedd mi loolu amul sanc njëkki ko ci sa biir kër sa biir kër mooy nga njëkki ko ci sa ci say ñaari waajur teg ci sa sa soxnaak say say doom mm-hmm. su demee ba nga xam ne dépassé na loolu nga nga ñëw ci koñ bi nga dëkk koñ bi nga dëkk mm-hmm. koñ bi nga jéem a jàppale waa koñ bi ASC bi ci koñ bi daayira bi ci koñ bi jumaa ji ci koñ bi mhm. ñi mag ñu baax ñi ne ci koñ bi nga jam leen a jàppale su mënee nekk mhm. su demee ba ëpp nga jàppale waa dëkk bi su mënee nekk jàppale leen ci santé jàppale leen ci ci ci ci ci sport jàppale leen ci wér-gu-yaram jàppale leen ci lépp loo leen mën a jàppale su demee ba loolu nga jàppale sa réew mhm. noonu la loolu mooy teraanga mais su fekkee tey ji yàlla dalaa jof teraanga nga yemale ko ci sa bopp rek rek rek rek rek rek rek rek loolu tuddatul teraanga <laughs> alors keneen neen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom soxna Didi nee na teranga bu njëkk mooy ngeen may ñu ñu xool euh, décor bi ngeen ñu indil bokk na ci teranga kon bokk kooku téléspectatrice bu kontaan la soxna Didi ñu ngi koy remercier bu baax a baax moom itam ku ñuy seetaan la macha allah. kontaan na nee na ci rafet yi yëf yi rafet yi mu fi gis et jigéen ñi ñu ngi réagir ça veut dire que euh, lii euh, TFM waxul sax ne daf leen koy won rek waaye daf leen koy may mën ngeen a wootee euh, ci 628 22 22 628 04 05 bu ko defee ngeen mën a am ci cadeau yi rafet yi alors keneen ku ñuy wax Oumy Ndiaye London moom itam nee na TFM daal bokku ci dëgg-dëgg yéen a ko yor kon bokk macha allah ci Oumy Ndiaye keneen ku ñuy wax yaa ami Guèye tudd naa ko sànq nee na ñoom de nee nañ jàng kontaan nañu ñoom itam macha allah yéen a ko moom. alors kii nee na jërëjëf <laughs> macha allah tata Eva sa bleu baax na lii yëpp ci teraanga la <laughs> kon bokk on t'embrasse très fort bi bleu bi su ma paree Mia Ndour laa ko bëgg a euh, jox waaye dama xam ne rek dafa koy daf koy xat looloo ma ci jaaxal ñoom Thérèse Faye daf leen di xat. ku ci jot daal ma ma ma ku ci jot képp ma simmi jox ko ay Aysata Si xëy na sax moom mu xaw a tane waaye ña ca des yëpp daf leen di xat ndoy baan jërëjëf ca jaajëf ñuy ñuy fàttali ni sa euh, euh, alxames bee passé am na soxna su woote woon ci tele bi tudd Mami Diop doon wax bay wax ay wax yu ëpp ci waajurum bu jigéen ak ñoom seen boroom këram ñëw na fi léegi nii di ñu xamal ni ni dafa wérul yaay ji tamit ñëw na fi keroog. Euh, tamit wax ni dafa wéerul ñuy jéggalu ci ci ci passage boobu bu baax a baax. Mm. te parce que affaire yu mel noonu da dafa dafa dafay dafay bari lu muy am. Mm. Euh, gi nga dara gënul metti mm-hmm. nga nga nga nga nga nga nga bëgg maanaam nga bëgg am soxla mënoo koo faj. ak kay dëgg. mais nag soo demee ba góorgóorlu ba am ku lay jàppale. Mm-hmm. am ku la jàppale moo jafe. mais nit ñi nañuy reconnaissance souvent maanaam su la nit defalee lu baax. soxlawul nga wax ko waaye soxlawul nga wax mais mais voilà soxlawul nga sax nga koy wax mais kooku am na cër boo ko war a mën a jox nit ku am njariñ ku la amal njariñ am na cër boo ko war a jox mais mm. fii nii ngay li may faral di wax naan da ngay dund ci sàq mi te saa boo xëyee yaa ngi ñaan sàq bi doonu daay. te maanaam fu mu ne nii nit a ngi yor kër moo xam kër ndey la moo xam kër baay la walla bu mën ci féete moo yor kër ga waaye yéenew ñu ko jàmm te teraanga nga fay dugg te c'est ça loolu moo bari Sénégal Allahu akbar da gis moodu moodu mu nekk bitim réew ah. yor yor ñaata famille fii ci dëkk bi ci waree te hmm. ñooñu mu yor ñëpp amul bon lu mu dégg rek ñooñu ñooñu nga xam ne ñoom ñoom ñooñu mu yor ñoo ko koy wax nit nekk ci ab dëkk hmm. walla nekk ci réew hmm. di jàppale waa dëkk ba mm. wala muy muy jàppale waa réew ma du mais du force mm. mais lu ñaaw lu mu dégg rek mm. ci ñooñu muy teral ñoo ko ko wax te loolu dafa bari ci biir kër dangay ngay bokk ak nit nday baay yor ko yor jabaram yori doom yor ndayam yor baayam uh. te lu lu bon lu ne mi ngi la ko yàq mi ngi dem di dugg ci ay sëriñ sax di la liggéey te teraanga gune defal na la ko waaw waaw dafa am ko ne ci ligne bi ah, waaw non très bien mois de décembre la ñu nekk wax naa ko mois béni mois cadeau euh, dañ ci jëkkee cadeau yi di leen ko jox yéen ndax yéenay sunu ay téléspectateurs ñu ngi nuyu bu baax a baax ki nga xam ne mooy euh, Fatim coro euh, Thioune macha allah mu mu Cheikh Béthio kooku sunu sunu xarit la sunu partenaire la ñu ngi ñaan yàlla yàlla dool dolli ko jàmm moom itam <laughs> macha allah ku xam teraanga la lépp kenn su koo wax. ajaratu juma jaxatee moom itam xam nga est-ce que yëg nga ne moom suba la anniversaire am ndax juma nee na soxlawul kenn seet si ko jox ko kado moom mën naa yónnee kado yow wuy li kooku mën teranga la dégg naa boole na dégg nga wax ji de ey eh, ah, ah dé dama ko gént rek très bien très bien Adja <laughs> bu baax a baax waaw alors kii. Euh, non njaga ku mën teraanga la. alors alors xam nga waa njaga nag sama sama grand la man duma ko wax. dara non non njaga gàmm pir gi lu ne la ci def. kan moom. wala ay dóor la non xool ma fii wax. non njaga ah. non njaga gaaw pir gi lu ne la ciy def. ah d'accord dégg naa mooy yor yëf yi direct la koy def. Ah, très bien alors kii soxna Pendolo ma nga Italie. nee na macha allah Eva seen plateau bi rek teraanga la waa plateau bi dafa mel ni sax na gars plateau bi moom su su feeti ju nañ ko yóbbu rek yóbbu ko fële. très bien mu remplacer yooyu yooyu yooyu may bañ a tudd. couleur yi ngay bañ a eh, alors kii beneen euh, téléspectateur la nee na yéen ñun ñoo leen war a ñaanal ndax bés man dama nekk ànd ak sama jëkkër muy diplomate baal naa leen tudd réew mi ma nekk mais yàlla xam na ne yéen a ngi dugg sama biir néeg di dugg sama biir kër maa ngi leen di remercier di remercier équipe bu Pape Cheikh Diallo yéen ñëpp dafa mel ni dama bokk ak yéen ndey ak baay ñun ñii ñoo bokk ak yow ndey ak baay soxna si nuyul ñu excellence. <laughs> waaw surtout nag euh, ma ñëwaat fi ma ñëwoon noonu. waaw moodu moodu yi lii may wax nii li ci bari. Mhm. dañ koy dund. Euh, dañuy teral nit ñi di jàppale seen famille euh, waa ah. <laughs> papa xam nga Pape Cheikh ku mën teraanga la. ani Pape Cheikh ma nga ne di wax rek ndeysaan. waaw léegi moom moom moom Pape léegi lan la moom dafa jóge wayaas mel ni ku gën a yeewu. wala waaw waaw yeewu leen ku ca def nga yeewu. waaw c'est léegi léegi léegi léegi léegi nu mu tuddati moodu moodu yi dañuy dañuy dañuy def teraanga bu bëree bëri ci réew mi wax dëgg yàlla surtout les sénégalais de la diaspora loo tax chaque jour ma leen di ñaanal ñuy ñuy am jàmm di amuy xéewal ah. ndaxte teraanga gu bëri lañu ñuy indi Sénégal màggalu Tuuba mm. korité mm. tabaski weeru koor ñu yor kër yi di fa joxe dépense di tabax ay kër yu rafet. di takk ci soxna yi. loolu teraanga la mais ne leen di ah, nit ñi di ñaanal saw ma jàllale ko liñ naan naka lañ koy waxee Sénégal maa fi gën xarit <laughs> maa fi gën xarit. alors très bien kii sëtu Ngalandou Diouf rek laa koy wooyee du ma tudd turam nee na soxna Eva xale yooyu di am problème mu serviette hygiénique nga baal ma nga mettre ma en rapport ak ñoom samay xarit dañu smart dañu dox ku ut xarit na nga ut xaritu Eva Tra yi yow. man de première daa sama xarit man. première dame mooy sa xarit. waaw. yow yaay yaa ko def xarit wala moom dafa jàpp. moom daf ma def xarit ma def ko xarit. man ku ma jàpp nii la de man ku ma jàppul du la jàpp de. Ah, daf maa jàpp ma jàpp ko ñu jàppante. te yàlla tax waaw. te yàlla tax am na ñu xaritoo moom. dina man ma munu ma wax lépp ndax woo naa woo naa madame Mbengue neexul jot. Eva Tra la mu fay. ah loolu la tey jaar ci man non lu lu sew la du dara du dara. mais nga jaar ci man lu tuuti la. c'est da ngaa xamul buntu bi kat. alors déet xam naa nag fa ma jëm <laughs> alors Teranga Sénégal un concept que nous a concept bu nu sopp très innovant kon boo kii itam soxna Ndeye Fatou on t'embrasse très fort garde naa li ci des du ma ko tudd alors soxna Mariem itam réagir na nee na moom kontaan na. am na kuy nuyu ba nuyu soxna soxna Miya lii kenn mësu ko gis. ah, ah, ah lii faaw faaw ma liir ko. Ah. Eva maa ngi France lii laa jàngal sama ay doom li ngeen di waxtaanee tey sama xel dafa sore ndax bu ñu waxee Sénégal teraanga moo tax góor góorlu naa ba sama doom yi xam nañu lu xew ci dëkku tubaab yi waaye rawatina lu xew Afrique. rawatina sama biir dëkk Sénégal bravo. non bari na bari na da may nuyu madame Seligman nekk fële ca Allemagne moom vraiment. Mm. nit ku baax la bari nañ. ñi ngi mm. fële ca bitim réew ñoo xam ni lu ne la ñuy def. ci ci réew mi. Euh, madame Cissé day bañ ko tuutu turam tuutu turam waaye madame Cissé Aïda. Mm. ñoom it ñu ngi fii ci dëkk bi. di mhm. def teraanga Juma Jaxate. Mhm. naa ah ak euh, sa borom kër imam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Mm. ak euh, bari nañu bari nañu soo dee lim tey ji ma du ju jeex. Mm. Euh, sa xarit ma ministre la femme. Mm-hmm. surtout mën na ni ministre la femme yi fi ne yi jaar fii yëpp. waaw yi fi jaar yëpp c'est la mm. même chose. et puis ce que ñu wax ko dinaay dégg sax ñu tooñ ne nangam wala animateurs yi nangam. teraanga weesul nga am soxla nit soxla la à nga boole kook nit mu fajal la ko point ñun suñu waxee teraanga loolu rek teraanga la. dama baan dama ne waaw. Sénégal. waaw loo mënti wax dinañ wax. dëgg la. ñun ñoo ngi liggéey di fayee ko weer wu dee. dëgg la namuñu dara. alhamdulilah nit ñi dañuy ñëw. dañuy poser seen i problème ay problème nga am ay sponsor derrière quoi ñu jàppale la su la posé problème boo xam ne problème mu jigéen la. da ngay dem seeti Ndeye Saly mm. su malaat yi baree lool te mënoo ci dara nga dem seeti première dame te loolu suñ ko defee ba pare dañ koy wax. mës naa woote ba woo Mansour Faye j'avoue que ba ma ko wooyee ci saa si balaa woo ko sax naata Mbacke Samb laa woo. naata boole mag Mansour Mansour boole mag keneen. et ñu régler problème boobu. on les remercie eh, eh, eh, loolu la leen di doy la leen di loolu la leen di doy. c'est la mu régler ko nga woo euh, euh, Naata Samb mu régler ko. Mm. loolu la ñoom da loolu lañ fi nekkee. dañ fay sama xel dafa dem jërëjëf. ci jigéenu Bolloré yi xam nga sa euh, vendredi ñu ngi doon def soirée bu am solo jël nag soirée bi def ko ki nekkoon parrain bi di euh, monsieur Racine euh, Sy macha allah. kooku tam ñu ngi koy ñaanal yàlla. nee naa kilifa. Mhm. dafa baax mu mun dalalaate te bi ñu ko gisee échange bi ñu amak moom yàlla def na macha allah kontaan nañ ci lool ñu ngi nuyu bu baax a baax Johnson Meng. Johnson, notre ami Johnson. et collègue le <laughs> vraiment ñu ngi lay nuyu di nuyu grand grand racine di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm macha allah defal ko njabootam yëpp amin amin amin très bien Ndoye Bane amin amin nii la Sénégal benn bopp la comme ni ko waxee kenn mënu koo xar ñaar mhm. euh, bari na am na ñoo xam ni ndeysaan euh, soo leen tuddee ci télé bi sax dañ naa la tey ma porter la plainte comme sama xarit boobu di madame Dioum madame Dioum Asi Kassé musuma wax benn malaat ci rajo bi mhm. te woowu ma su ko réglé wul à 100 pour cent. très bien dina ko réglé à 50 pour cent te danaan ma bis boo ma tuddee ci télé wala rajo bi naa la porter plainte. madame Diouf à xam nga ko defe naa. boole woon naa leen waaw waaw nit ku nit ku nit ngi noonu. moom daanaka màkk la dëkk. dëgg la moom moom moom lépp a màkk la moom. vraiment nit ku am valeur ko fi tudd. gis nga. man Eva. gis nga li ma sa li may ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw man dama bëgg nit ku am valeur. dama bëgg nit ku ndeysaan nit kuy def lu baax mm. maanaam nit koo xam ni lu baax lay def di ko wax te du fekkee lu ñaaw te loolu dafa bari ci dëkk bi ñoo xam ni ay ay ay xolo yaayu yaayu mami bi yaasin maire mm-hmm. yaasin madame madame Fall mm-hmm. ay nit yu am am classe am maanaa am mm-hmm. valeur di wax yu baax di wax yu sell di def lu baax madame madame madame Derviche sama sama maire boobu loolu loolu mooy teraangal àdduna bi dafa jeex ba pare loolu rek moo fi des di wax lu baax tey def lu baax. très bien tey dimbali doomu aadama yi soo ko mënee dee ko def doo ko rëccu. ndaxte nit da ngay dee bàyyi fi say njaboot de. dëgg la da nga fi dee bàyyi fi sa yaay wala sa yaay dee bàyyi la fi wala nga dee bàyyi fi sa njaboot. Mhm. soo daawul woon def lu baax sa njaboot fii la ñuy nekk sonn soo dee def lu baax nag soo dee sukaraat sax doo tiit. da ngay xam ni def katu lu baax waaye baan da nga fàtte ne euh, mbaax alalu yàlla la. ne bés boo xëyee sax da nga ne diw defoon na ma nangam danaa fayu waaye boo moytuwulee baax baax nga koy fajee parce que loolu moo nekk ci yow te nit ki lu nekk ci yow rek nga mën jël maye wax dëgg yàlla kenn du maye lu mu amul kon ba ku ci baax baaxay sa wàll ku ci mel ne Eva Tra boo nga gaawantu soppi jikko ndax wax dëgg yàlla adduna euh, yàggul ñu ngi remercier waa Niger xam ngeen ne itam Niger dafa organiser SAFEM SAFEM nag c'est le Sénégal qui est à l'honneur foofu la femme africaine est à l'honneur kon boog soxna Didi merci pour information boobu li ñu bëgg a wax yépp fii dafa bare lool macha allah am na ñoo xam ne xam naa ne bu ma leen liimee tudd leen su ma noppee fii dinan ma dóor kon mbokk baal naa leen yéen a ngi àndoon ak seen émission wareef ci télévision Futurs Médias télé bi nga xam ne dafa bëgg saa su ne ngeen ciy gis seen bopp ñun dañuy demee feeling wax dëgg yàlla demee feeling nag mooy dem ak aisance def li nga xam ni euh, da ngay bëgg ñëpp kontaan am am ñu yaakaar ne yàlla may nañu ko télévision Futurs média seen télé bopp la yéen sax xam ngeen loolu euh, Miya Ndour ñu ngi lay remercier remercier sa équipe yëpp macha allah ku lim juum waaye ñëpp daal euh, wax dëgg yàlla gërëm nañu leen fonk nañ leen kontaan ci yéen may remercier également ki nga xam ni mooy Bamana Couture merci pour le beau bleu nee naa seen modèle yi li tax mu neex ma dafa intemporel yére Bamana di nga ko sol pendant 10 ans 15 ans 20 ans du changé kon bokk ñoom dañ leen di remercier remercier Mimi Traoré Manti Traoré Sidi Euh, groupe tailleur yëpp ak itam tous les clients de bamana on vous souhaite vraiment Euh, un mois béni yal na yàlla def barke ci lépp loo xam ne rek ñun ñëpp dañu ci dugal suñu loxo ndeyam yi merci à toi Adam ak Awa ñooñu tam ña nga ca Grand Dakar amee seen salon di liggéey di daan seen doole ñu ngi leen di remercier Beya Couture Beya Coiffure ñu ngi koy remercier remercier képp koo xam ne rek saa bu nu euh, taxawee ci tele bi feeñ sa loxo dafay bokk ci ci col gi ci li nu sol ndax ñun xam nga ñun euh, léeg dañuy bëgg rek di wane wu ndoy baan kon bokk yëf yaa ngook Mia ñu ngi ñaanal téléspectateur yëpp kendal ak jàmm bon appétit ànd ak teranga Sénégal ndax Sénégal gi teranga rek fi xaj moom la ñu xam xamuñu leneen lu dul lu baax bon appétit à tous on vous aime très fort